وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من سحو ونسيان أو تعرف الكلمة عن موضعها أو تحير عوف أو تقديم أو تاخير أو زيادة أو نتهي أو كسر أو سرعة أو سيق اللزان أو وقف بخير وقف أو, أو, أو وقف بخير وقف أو إدخان بخير مخن أو إزهار بخير بيع عراب بخير مكان اكتب منا على التمام والكمام والكمال ومهزب من كل إحان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 doon yi limaan yi limaan yi moom lañ tuddee ki nga xam ne kii mooy sunu gan gi tey ah nooy baan dafay ko doon de ci télé bi rek nga yemoon naan mooy sama sëriñ sëriñ nag day mat eh, tubaab bu la bëggee tawal la France des na sëriñ Maodo Mamour moom ci boppam moo doon yemal mu son daal la joor moom ci boppam. ki ñëw léegi kana eh, yéen a ko wax ak Mamadou Diop ah ah ah ah, ci Gambie Albert Badiane mi ci ñoom ñun ñëpp yow. bu kenn di yaatu. muy bant. Serigne Ndiour Ah, ah, ah, ah, fi. waaw waaw mu dalal soxna si mu àgg si. moom la ñu jëloon ma maraîchage su góor dafa xaw a seer. te loolu moo ko béy laaj te wut foo ma ko tegal. waaw association waa RAPET tamit sama sang bi moo leen ci teewal moo nami. moo nami. am am am. Marika Mbour Sarang ma lay Abdou Koumba Diop. voilà. lu ma neex taxaw lu ma neex def lu ma neex wax. président yi suñuy coow li coow yi yow la. te lii mu àgg ci gox si ci yow si ci yow rek la yem nga réglé ko. billaahi te nag lu ay wax di nga ko waxaat kon boo ko dee jëf ah. ba mu toog ah. àddina ah. war nañu xam ne loolu yaa ngi koy def bonte woo kenn génne woo kenn loo jëlee ci bitim réew ci réew mi nga ko delloo ba pare nag tubaarkàlla nag boole ko ak modeste employé bu gën a ndaw soo ko rombee da nga koy tàpp sabaa naka nga def kenn du la séenti li yombul ci li li jafe ci kilifa yi boo leen séenee rek yëngu sa xol di tiit yow ku la séen day biir bi. eh waay. billaahi dëgg la. mbooloo mi su ne mi ngi nuyu mbooloo mi yëpp. xam na ne ancien yàlla rek mi ngi fi yi mu fekk yëpp. mais bu ñu jëlee sëñ Abo mu baax mii. mais jël nuyu na délégation bi nga xam ne ñoo fi teel sëñ Bass Abdou Khadre.

tubaarkàlla gor yu baax yi ci fekk yépp ku ci nekk Youssou mi ngi lay jox sa wàccuwaay bi nga xam ne moom la la yàlla jox. nuyu moom ku si rek euh, buñ la xoolee war nañ laa xam ne. mais ku nuyu Ndoye ku nuyu si Ndoye Bane su loolu ñëpp ne jàpp war xam ne. mais dafa am. am na cër yoo xam ne moom la ñuy jàppee doomu aadama. mais ku mu jaral nga jóg. booba kooku la muy la muy wane. nee la kooku di incarné di ko wane. soofu la. nee daal soofu la de. dëgg de wala ànd nga ci ak moom. wala daal ànd nga ci ak moom. kon jikkoom. nee jikkooy Ndoye Bane. bi nga xam ne moom lay wane. nee bi nga xam ne moom la wane. à son travail. ah ci biir liggéey bi nga xam ne moom la ñu ko dénk. ak li mu seq ak ñoom. ak li mu seq ak doomu aadama yi. nee ku ñëw fii tey. nee na cër bu rëy boobu ko yàlla jox te ma ko doxal ni mu waree moo tax tubaarkàlla nga teew nee taxul Youssou nee taxul nit ñëw nee moom mii moo tax nit ñi ñëw nee ñu ñëw na nee di ndokkeel nag suñu soxna su baax si nee addina soriwul nii rek la nee gan dañu koy teeru nee nii nga def bëgg na ci kontaan na ci nee gan dañu koy teeru nag. nee bu loolu rombee. sa waay moom nee daal coupe bi ko daane na gaañ. nee daal tubaarkàlla wax ji rek doy na. ma wax ji rek doyul. nee wax ji ah day jëf na. billaahi dëgg laa ilaaha illallah. nee billaay jëf nga. sunu soppe. nee sunu soppe. sunu yaakaar. nee sunu yaakaar. ci taxawaay bu rafet. nee ci taxawaay bu njëkk bi. yiw nee ci yiw gi. dégg ndigal nee ci dégg ndigal gi. taalibe nee ci taalibe gu gi nga xam ne moom la am. ah moom nga jox tur bi. nee moom nga muy sëñ bi sax mu tedd. saxaar. ku lay déglu. la doon déglu danaan man nekkuma woon ci réew mi. nee bu fekkee daawul a déglu daal man maa man fan laa newoon ci réew mi.